في القلب في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون الشيخ محمد منتخب yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ba taxawaay bu ma sëkk bi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci yoon wala suñu borom la ko kàttan ak wér lépp mu àggale ko li mu ko bëggee ndax xelum jullit yëpp a dal ci moom xelum taalibe yëpp a dal ci moom kon ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk taalibe yëpp di nuyu di nuyu Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké ak imaam mi nga xam ne eh, ñëpp xam na ndax surtout Serigne taxawaay bi tam di ko fi Serigne bi séentoon ba indi ko fi ñëpp xam ne nga matal na ko kon la ko yàlla yàgg taxawee. ñu ngi ko yàgg topp ci ginnaaw di nuyu sëriñ Bathie Faye mi nga xam ne moo yore kàddu sëriñ bi di fi jëw ni ñoom ci Ndakaaru ak mboolem bi ko lépp mooy tam koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ndax fàttali rek la ndax liggéey bi bu demee ba agsi fii ñëpp xam nañ ci taxawaayam xam ci yitteem xam ci positifam ba yàlla def suñu doon def li ci ëppoon ak kon moom itam ñu ngi koy sant di gërëm taalibe bi yi topp ci ginnaaw wax ji nag du ndax dañuy sant bokk jullit yi rek ak bokk taalibe bi rawatina fii àdduna toll nit ñëpp maase xam wopp ji nga xam suñu wàcc na ko ci kaw suuf muy balaa di mbas moo xam yàlla ko yàlla tegg ndax ñëpp xam nañ ne li muy gàllankoor kon itam bu yàlla defee ñu dem ba mu demee woon nii ak woy fanam si ñëpp gën a góorgóorlu ci sàmmonte li nga xam ne moo leen di aar di aar ñëpp ndax jàngoor ku ne ci yow war ngaa fexe ba boo bu ko di ko watandiku loolu suñu borom ko santaane kon nag ñu nuyu ñëpp di rafetlu nag mboolem bokk jullit yi ak bokk taalibe yi ndax jàkk ji wa anna al masajid lillahi falaa tad'u ma'a llahi jullit yëpp nag maase gi ñu maase gi maase ci xam ne jàkk ji néegu yàlla lépp lu ñu askanale sëriñ bi waa jullit yëpp ko bokk ndax sëriñ bi loolu lu ndund loolu lu waxee fir lii nag firnde li ci ne wuy si ko ko ñëpp wuy si ci loolu xam ne ji xam ne néegu yàlla ba tax mënoo fee xàmmee murit ak tijaan ak xaadim ak laayeen ak yeneen tarixe ci des yëpp ci Sénégal ak ñi nga xam ne sax ay jullit lañ parce que wi ci tarixa la lépp mooy li nga xam ne suñ borom santaane dafa ne te rasulullah indi ko al mu'minu axuhul axuhul muslim innama al mu'minu ixwatun fa aslihu bayna axawaykum lem santaane ci jullit yëpp maas ci àndoon nekk bi ak lii bokk na ci li koy firnde euh, nous grâce à Dieu et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa et à notre guide, le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rasoul. Et nous remercions le Khalif général des Mourides qui représente toute la communauté mouride, Cheikh Mohamed Montaha. Et à travers lui, nous rendons toute la grâce divine de nous avoir permis d'écouter ces recommandations et de nous permettre d'avoir toute la possibilité de les remplir comme il se doit. Nous saluons au passage son représentant ici présent, Cheikh Mohamed Bachir, qui nous a amené les recommandations du Khalif et prions que Dieu lui donne une bonne santé, très longue vie et l'encourageons sur sa démarche, sa démarche, permanente de veiller à la bonne marche de la communauté que nous partageons en commun, qui est la communauté mourite. Nous saluons au passage aussi tous les musulmans de tous bords, de toutes les confréries. Et avons le plaisir d'accueillir avec beaucoup de plaisir les instructions émanant du Khalif général des Mourites qui consistent à préparer pour le grand magal de Touba, comme à l'accoutumée, une grande journée culturelle exceptionnellement cette année qui coïncide au premier anniversaire de l'ouverture de la grande mosquée Massalikul Jinan. Auparavant, le calife nous a aussi instruit de tout faire pour terminer les autres travaux qui viennent en complément de cette mosquée qui est un des éléments de l'Institut de recherche islamique Cheikh Ahmadou Bamba, à savoir l'Institut de recherche, à savoir à travers le musée d'exposition des œuvres et des reliques de Cheikh Ahmadou Bamba, et la finition de quelques travaux qui restent pour l'achèvement des travaux de la Grande Mosquée. Et cette année, exceptionnellement, Cheikh Mohamed Bachir nous a amené les instructions du calife sur le programme de la préparation du Grand Magal de Touba que nous faisons chaque année. Mais comme je l'ai dit tantôt, exceptionnellement, cette année, la préparation du Magal coïncide avec le premier anniversaire de l'ouverture de la mosquée Massalikul Dina. Et nous voulons, d'ailleurs dans un autre entretien certainement beaucoup plus élargi, avec toutes les composantes de ces manifestations, à savoir le courriel des deux rakas, des deux nuits de Dakar et des deux rakas qui euh, commémore la de Cheikh Ahmadou Bamba sur l'océan et l'ouverture de la grande mosquée pour en faire une grande semaine culturelle, certainement qui entre le 19 du mois de septembre jusqu'au 28 qui coïncide avec l'ouverture de qui, qui coïncide avec l'anniversaire de l'ouverture de la mosquée Massalikul Jinan. C'est ça ces instructions que Cheikh Mahamadou Bachir était venu nous transmettre et que j'ai eu l'honneur de vous annoncer. Je pense que à la sortie de, cette, de ce petit point de presse, nous allons nous, entacher, nous allons nous atteler à convoquer une très grande réunion avec tous les composants de cette organisation, à savoir, comme je l'ai dit tantôt, les autres daïras, plus les bonnes volontés que nous allons coopter pour en faire en quelque sorte un très grand comité d'organisation. Et nous appelons toute la communauté musulmane, sans distinction, Mourid Tidjan Khadir, comme l'a dit tout à l'heure Cheikh Mahmoud Bachir, pour venir en communion avec nous pour en faire cette année une très grande réussite et que tous les ans, allah que nous allons faire pour commémorer le premier anniversaire de l'ouverture de la grande mosquée. في القلب في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون